waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. sëñ Abdou Samad maa ngi lay delloo nuyoo ko siyaare bu baax di siyaare bokki taalibe bi waaw tubaarkàlla fan yii kay déggoon naa kàddu yi wax naa da nga doon la waxam ni ñu teqalee ak tawbatu ak teqale bu jomb jàpp lool bu soobee yàlla ndax ay istixfaar moom li ci koy jëmale ci sàkku njëgalu yàlla goo xam ne kooku da ko awee ci ñaan nga xam ne ci ñaan la ko defee mel ne addis boobu nga xam ne dañ koy tuddee sayyidul istixfaar te ñu bari ñeen ko mokkul ko sax allahuma anta rabbi ak sax ci alxuraan bi yàlla ne wal mustaxfirina bil ashaar ne dañoo laaj ku baax ki sallallahu alayhi wa alihi wa al istixfaar ne leen xooloo ne leen allahumma ighfir lana warhamna wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim xam ne kon daanaka daa manees naa takk ne moom ñu tuddee ay sifaar li ci ëpp dañ ci jublu rek sàkk njëgal te awee ko ci wàlluk ñaan dana ñëw ci alxuraan nag foo xam ne moom day fekk ñooñu tuubu ñu woon nekku ñu ko woon ñu sàkk ñu jéggalu bokkaale ga ba noppi nag cee topp ñu delloo ko ci na ndigal من يعني وياخوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه أكو أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه دنيوخ وياخوم استغفروا جبلش من الشرك ثم توبوا جبلش بالطاعات أو آه، دفن هذا سنتو بعلم تود التوب نصوح نياريون بين دولجة الجالب للفتو التوبة النصوح الجالب الفتو أكبر منه الجالب للغروب فتوح xam nga gis nga ay baat la koy def xam nga xasida la koy def xam naa daa bëgg wax ne moom xay na ci mbaaxum yàlla ñu ko may rek kooko jàng rek am ci noonu mu ko tuddee tuggu sell gu ñoddi ay ubbi mbaa boole ci di ay leer ki ubbi kon mooy naata ko noonu ci istixfaar moom daanaka muy takk boo xam ne ni muy tekk bu bëriwut mën naa am nag léeg-léeg ñu wax benn istixfaar jubli ci tawbatu waaye mooy naata ko daal noonu ci istixfaar moom ak tawbat moom ni ñu ko gannaaw bu ko ko duggee ci lislaam moom ak bu day am sart yoo xam ne moom la sëñ bi di baamu ci ay barabam yu bare bare bare xam day am ñeenti sart sart yu njëkk ba mooy rëccu ndax am na sax bu addis bu ne ak tawbatu an nadam am na nekkoon rëccu rek daal na xaw a wecc ak tuub ñaar ba mooy bu fekkee ma nga ci woon daal koy bàyyi fa saasa saasa al iqlaaw xani damb ñetteel mooy dogu ci bañ caa delloo ti mukk mukk muy sartu ñetteel ba ci mujj nag mooy bu ko seqee kenn ci doomi aadama yi moom muy ak mi def da caa aju moom faaw rek mu seet mu muy defar digganteem ak kookee nga xam ne moom la seqal ak jooje ñu koy le ci bu dee dund bu dundut nangam ak nangam a kon daal yaakaar naa mooy naa jàpp ne atawatuma fu ñu ko waxee rek day daal di xaw a diis ndax bu dee koo xam duggutoon ci lislaam moom ak tuuba moo dugg ci lislaam bu dee koo xam duggoon na ci itam te wóor kon defoon na bakar te ku mucc ci bakkaar bariwut kon xamne ak tuba mom faaw mu bolé ñent sart ya waaw mom dal faaw rek reccu woro wër go xam du ko tek ci ñaké na ci wër ba ñaké na ci alal ba nangam way sama dara yaqku ci sama bakkar bi koy reccu go xam day dal ci digënté mu mom rek nga xamne mom day reccu rek yalla mu mag mi ni mag mu diko moy dal lol dal wara reccu bu dé lo xam nga ci won da koy bayyi fa sa sa sa do ko ci bañ ca delo tim ko mukk waaw bu amee ku mu seqal dara nag mu dee bàkkaar bu mu seq kenn ci mi def yi moom faaw rek jégalu ga mbaa na muy defee moom ba loolu yéwén daal du mën a ñàkk waaw jërëjëf Mbacke defe naa googu teqal yow yow mën naa jàpp loolu bu soobee yàlla waaw kay jisaakumullahu taala xeyran jërëjëf tubaarkalla Mbacke